salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi ñoo ngee ñaan yàlla commencé ci bisimilahi rahmaani rahim àggali koog alhamdulilahi rabil alamin balay dara ñu julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm ci biir Sénégal ñaan yàlla fépp foo xam ne doomu Sénégal ma nga fa yàlla na yàlla. teg loxo ci yow macha allah te nga yàgg lool di dem ak a ñëw ci biir dëkk ci bii dëkk balaay lenn nag ñu dooree émission bi nañu ko baaxooy defee mbokk yi bu ñu tàmbalee wareef daañu nuyu suñu PDG boole ko ki yar ak teggin waaye noonu la ñuy nuyoo itam ba tey bépp directeur ci biir kër gi di wax équipe bu Pape Cheikh jëre ngeen jëf ci li ngeen ñu sedd ñu ni tam suñu place ñu koy dooree bisimilahi rahman rahim nuyu suñu ay kilifa diine ak kilifa aada boole ceeg di leen sopp di leen ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér ak teraanga boobu gudd fan wér ak teranga nu dañu koy ñaanal itam njaboot gi yëpp daa dee dem nag seeti ña nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw bu nu waxee loolu ña nekk ci béréb yi nga xam ne wax dëgg yàlla dañ leen fa incarcéré ñu ngi wax ne amunu liberté waaye liberté doomu aadama bi moo koy may boppam boo ànd ak foo mënti ne am na am nga am nga droit ne am nga liberté maanaam liberté d'esprit bu ko defee bërëb yooyu dañuy ñaan yàlla mu nekk méditation ci côté boobu la ñuy waxee méditation boo xam ne yokkute la lay indil te ñu ngee ñaan yàlla itam sa réinsertion ci biir société bi yàlla na ko yàlla yombal mbokk yi ñu taxaw tuuti daal dee seeti ñi nga xam ni dañoo nag nekk ci hôpitaux yi dispensaires yi ak cliniques yi noo ngi leen di ziar di leen ñaanal yàlla yàlla wéral leen ba ngeen gaaw dellu seeni biir njaboot ñu ngi leen koy ñaanal tàllal loxo sunu borom ci barke sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla wéral leen gaaw ba ngeen dellu ci seen activité bu nu waxee loolu jamono bu nekk nit nekkee di liggéey mbir am na keneen ku talul mbir ndax mi ngi ci tiis mi ngi ci métit képp koo xam ne jamono jii yaa ngi ci métit ñu ngi sukk sa wet di la wax nànk massa massa massa moo xam métit bi lu mu mënti doon ndax nee nañu àdduna bul xeebal kenn la ka dal moo tax ñu ngi leen di massalu bu baax a baax a baax ñi nekk ci dëj itam ñu ngi leen di wax ngeen muñ ndax yàlla mooy dogal mooy maye mooy nangu te bu nangoo itam ñun duñu def lu dul tàllal ko loxo wax alhamdulilahi rabil alamin waaye di ñaan yàlla yàlla na nañu nangu yi nga xam ne daf nu koy teg mbokk yi bu nu dikkee ba fii faaw nu nuyu lu waaye di def te mu jik la da nga sax dinañu seet bu baax ak gestu sunu maam maam Cheikh Tidiane Sy Al boole ca di ko sopp bu baax a baax waaye di ko ñaanal yàlla yàlla na fi yàgg lool te wér yàlla na fi yàgg lool te ñu koy ñaanal nag njaboot gi yépp noonee la ñuy duggee ci bépp ëtt këru diine këru aada di leen ziyaar di ziyaar ña fa nekk suñu xel dafay dem ci waa cene ba sekkeen suñu xel dafay dem ci waa Cambérène sunu maam Ablaye Thiaw Laye macha allah nu ngeen ñaan yàlla yàlla wéral ko waaye itam dina ñu dugg tuubaa dina ñu dugg dina ñu dugg fépp fépp fépp macha allah ëttu Thierno Seydou Nourou Tall itam ñu ngi leen di ziar ndax sunu ay xarit a ngi foofu suñuy soppee nekk fa yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal di leen wax ne ndakaaroo ngi nii buntu Afrique waaye nag ndakaaroo ngi nii ngeen nekk ci seen télévision Futur Média saa bu nu xëyee ñu ni bokk na ci li ñuy neex mooy ñu daal dee def géew boo xam ne daal am nañu yaakaar ne société yëpp daal ci bàyyi xel Euh, soxna Mami Linguère nu ngi lay wax bisimila oh, loolu mooy introduction yi ñu doon def di ñaan yàlla sa maam itam yàlla na suuf <laughs> Nelson Mandela aw fan ñu lay wax bisimila temps yi dañoo jubóowaat maa ngi moom moom ah. ñaan gi dina ma neex lool très bien kon dañuy door nañ daan dooreeti ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg mm-hmm. sama maam yàlla mag Nelson Mandela te ko koy jaloore mm-hmm. di ziar nag mbooleen kilifa diine kilifa aada yi di wax ne Sénégal a ngi nii réewum jàmm la ko fi xuloo di xus booy layu di koy def ci dal ndax dal rek kay suñu mbokk waaye noonu lay demee ziar sama maam sama soppe maam Cheikh Al Maktoum mm. damay wax góor gi ci ruq bi te jàmmi réew mi rek a ko bàyyi ci ruq bi fi loo fi yàgg doyul mm. waaye noonu lay ziare mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Muxtar mm. ak mbooleem ahlu Mbàkke yu gépp maa ngi sukk ci leen joxaat seen wàcc waaye di ñaan yàlla ñu yàgg fi loolu te ndax ñoom ñooy kenn mbaar mi waaye noonu lay ziare sama maam Kamara Jibante booy yaa xacca di ko wax loxo yi dellu seeti na yaay diggéen yàlla xippe ci àjjana yi gën a kawe ca firdawsi noonu lay ziare itam maman Kiné ak euh, maman Kinushka mm. ak yaay Nafi Diallo maa ngi leen di ziar lu bëree bari noonu lay ziare itam yaay su jara yaay Astou Seck mère Ndoye mm. ak Marie Bane sama soxna soosu nga xam ne du musa am wujju mm. maa ngi ziare itam sama bàjjen Awa ma maman Ndeela Wade maman maam Fili Diallo sama yaay yooyu yëpp maa ngi leen di ziar. Mm. waa atu sëy bi heure bi jotati na yéen itam seen nuyoo ngi noonu aw ma seen fay yàlla ñoom seen fay yàlla na leen yàlla fay. très bien soxna mami li ngeen ñu ngi lay wax jërëjëf waaye mm. sunu xarit taalibe Cheikh Bass Abdou Khadri. waaw kam jamono yi mm. da nga nekk ci tiis tuuti. ndax dañoo yëkk benn jigéen boo xam ne daf la tuddee woon doom. Mm-hmm. jóge ca dëkkam ñëw ne mi ngay ñëw ci yow yàlla def mu des ci ci yoon bi. ci accident boo xam ni amoon na ndoy baan waaw dëgg la dëgg la ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp di ñaan sunu di ñaan sëñ Cheikh Bass Abdou Khadre yàlla na fi yàgg lool te wér di jaar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di jaar waa Pire Sañoxoor sa xarit yooyu comme ni nga ko waxe waaw <laughs> sa waa xam naa ni a jàpp bu yaa ngi nuyu paa neex nag tur da lay neex gis nga man jeeg <laughs> ma Bintu Diop mi ngi koy wax démb surtout sëñ Moustapha Cissé Bintu Diop ma nga ca Tiwaawan ñu ngi koy nuyu mu nga naan ma bàyyi Baddo yaa ngi koy nuyu mais yaa ngi nuyu paa bu neex <laughs> ñu ngi koy ziar baax di ziar sunu kilifa ya fa ne yëpp comme ni nga ko waxee noonu la rek. Euh, soxna soosu moom comme ni ngeen ko dégg rek ni ngeen ko expliqué boobu ba rek noonu la. Mm. Euh, soxna sa ma nga ca morgue bu hôpital régional bu cees euh, ba léegi gisaguñu ak bi ay mbokkam yorul benn kayit mënuñu ko identifier. waaye doom ja dara jotu ko ma nga ca service social ba madame defe naa madame. waaw waaw ndaw si loolu la wax dafa jaar pire. guddi euh, sam papa dalal ko ni ko na fi fanaan bu suba euh, ni ko na fi fanaan bu suba euh, su parce que guddi la te dafa yore xale léegi nag mënu ko doom ji sama eh, ndoy baan lañ ko tuddee moom laa doon seet mënu ko ndoy baan nekku fi ginnaaw guddi na fanaanal bu suba mu fanaan xëy suba sang doomam ndékki dem garage piir ba jël oto di ñëw ndakaaru accidenté ci sorti put bi mhm. bakkanam des ci doom ji nag dara jotu ko léegi nag hôpital régional ñoom ñi ngi ciy def lépp lañ ca war vraiment service surtout service social bi nga xam ne ñoom ñoo yore xale bi mm-hmm. mais ndaw si nag dafa yàlla dafa def mm-hmm. yorul benn kayit kenn mënu ko identifier oh. mais kàddu yu mu wax sam papa rek lañ mën a jàpp que ni Richard tool la dëkk fa la jóge mm-hmm. doon ma seet donc liñ mën a def mooy seet ko ci boo Richard Toll ak li ko li ko wër rek képp koo xam ne daal danga nga gis te nee na moog yaay yaayam mm-hmm. ñoo laan toog di seetaan wareef ak di déglu xalaas yaayam daf ñoo bëgg ba nga xam ni mm-hmm. fii ak pare wuñu ju jóg kon boog képp koo xam ne da seetaan wareef te nga am doom ju am dix-huit ans jàpp vingt ans yoroon doom joo xam ni ci mi ngi am góor la ba pare mi ngi am ci benn weer ba jàpp ñaari weer daal te te te gisoo ko na nga dem hôpital régional bu Thiès nga seeti ko. bu soobee nga seeti ko parce que am na diir boo xam ne suñ ko suñ fa yeggee. Mhm. procureur da joxe ndogal pour ñu dem. robi denc leen xam nga te loolu. Mhm. Euh, kenn gënalul kenn. donc ñuy rek yàlla na yàlla na ñu niital ñu ay mbokkam. ba nga xam ne xale bi fii bi mu fi bàyyi tamit yàlla def ko mag. incha allahu taala yàlla na yàlla sàmm ko. Mhm. may wax itam xam nga lii dangay ngay liggéey ba ñu lay tuddee doom. benn soxna suñu naan jama. daf ma tuddee doom mhm. bébé Eva Tra ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a mhm. baax mhm. am na itam beneen bébé Eva Tra ma nga Richard Toll boobu nga wax moo tax ñu ngi leen di nuyu wax dëgg yàlla ne nit bu la tuddee doom alal taxul lenn taxul jikko doom nga tax mu tuddee la doom jikko jooju ngeen njort ci ñun nag yàlla na ko yàlla dëgëral te gën koo rafetal ngeen bañ ci am mbetteel ñun itam ñu bañ ci am mbetteel mbokk yi di leen wax ne yéen a ngi seetaan seen émission wa thème bii nag ndoy baan suñu xarit ñu ne thème jigéen ñi la ndax ñaare bu ñu dee wax yàq ci biir société ñun dañ caa bokk nee na ñu lu defaru ñoo ca bokk waaye itam lu yàqu ñun ñoo ca bokk mbokk yi mm-hmm. moo tax ñu war a defar rek te yàlla tax defar te yàlla tax bokk na ci nga am alal wax dëgg yàlla dugal ko ci loo xam ne boo ko boo ko defee dana nekk lu conventionnel waaye am sa alal benn fan nga liggéey benn fan nga jël ko yàq ko léeg-léeg sax léeg saay di nga ci dégg lu la naq di ndax démb ci waxu mami Linguère nee na kenn mësuta woote bañ nga dégg ca wiiw boo mhm. wootee gàtt gàtt da nga dégg ku ne waru ko woon defee nii mhm. nii la ko waroon defee mhm. est-ce que nag loolu war nañ cee wéy naka la ñuy def ba arrêté ko loolu mooy li nga xam ne ñun ubbil nañ leen sunu ay antenne yàq daal ànd ak lu mun munti am kenn sopp ko kenn bëgg ko kenn mësta yàq ba am lu baax te fu nu waxee yàq rek yàqute dikk na mhm. nu yaraat suñu bopp nanu dëglante waaye émission bi li koy neexal bokk na ci seen ay témoignage mhm. seen ay seede lan ngeen dund ci mbir mi loolu da cay am solo soxna Mamy Linguère bismillah waaw xanaa dellu di santal rek di wax ne thème bi moom yëngal na réew mi mhm. ndax ndekete yoo te jeeg yu bari ñu ngi ne woon mugg ak moom waaye ndeke ñenn ñi indi na leen lënt lënt xol yenn kër yi tas na yenn kër yi ña ngay gaaruwaale yenn yi am na yu rataxoon ñagas na am na ñoo xam ne demoon na bay neex yàq nañ ko ci ay njaag nangul waaye damay dellu si ci li dooy wax léegi daf ñuy delloo si waat rek que ne daal ndekete yoo te carte moom lu nit di fowe nit fu mu mën di jëm surtout buy jóg bay tukki mhm. na yor pièce boo xamante ne lu ko mën di dab ca yoon wa mhm. ñu xam ko nit ki dafa war am lu luñ koy ràññee mhm. loolu moom nañ ciy bàyyi xel bu baax tey ñaan yàlla rek yàlla teg loxoom doom bi mu fi bàyyi waaye moom it yàlla niital ko ay mbokkam ndax yàlla am na ko mën na ko dellu siwaat di waxaat ne Eva dëkk bi fi tool toll nii koo dégg ma nga naan njaag nangul démb sax ba tey dégg naa jeeg joo xam ne moom la ñuy doxantoo seen biir kër di ko way maanaam ah dañuy dañoo xam ne laalal nañ leen seen góom waaye am na ci maire boo xamante ne moom nee na bu jàppee ndoy baan moom ndoy dootu ko defati. <laughs> sama yaay sama yaay <laughs> mere na ndoy baan lool lool. waaye li ñuy wax rek mooy xam nga taw bu dul sewet yebb yebb da cay doy. dëgg ndaxte ndegam yàlla mi moom ndoxam mi di ko joxe mooy def heure bu ko neexee mu wàcce c'est bu doyee mu arrêté ba déwén mu joxaan ñu. mbes mm. maa doomu aadama. mais démb dañoo daaneelee fu am solo. Hmm. foo xamante ne buñ ko continuer woon xëy na doonoon na neex ñu bari moo tax tey ma bëgg ci ñu laalaat ci tuuti. mooy danga ne am na ci ñoo xamante ne yow bu ñu demee ba toll ci yenn niveau yi. Hmm. nga gis leen ñuy doxalee neen ni daf lay metti waruñu di doxalee neen ni ci yenn cérémonie ndax dañuy encourager. c'est vrai ñenn hmm. ñi nga xam ne ñoom it dañuy bëgg a toll ne ñoom. dëgg la ñu bëgg ko def. man la mais daf ci am ñaari defin am na ci koo xamante ne day fay merum démb defante day defante ndax ñi ko xeeboon démb ñoo ko nawloo tey par force lañ koy bëgg tey par force lañ bëgg tey léegi nag moom it par force da leen di duma te enveloppe la leen di duma xam nga li ñuy wax ko ëmb sa sankal ëmb naa dem toroxal leen ñoom ñu naan ñëw na dinu teral moom mu ne naa dem toroxal leen benn jeeg dafa ma wax mu ne ma moom li muy jox goroom ak njëkkeem seen làmmiñ la asakay liggéeyam nee na moom la leen di jox ndax tëj seen làmmiñ te nangu nañ ko ah, bu baax a baax boole ceeg di ko gërëm bu leen wanee ginnaaw ñu saaga ko mais moom nee na ni mu ko da koy def ngir ne am leen sa bokkun ma leen am na fi teraanga yoo xam ne yaa ngi koy jox nit ki di ko moolu ndax yow mi koy yóbbu mënoo ko mhm. mais am na ci ñoo xamante ne tamit ñi ngi dem di génnee enveloppe naan nee na boo dajjee enveloppe bi di nga xam la ca nekk parce que bu dul woon enveloppe boobu kenn du ko tuddaale ci réew mi comme li Ndoye Bane wax ña fi falu woon ñoom lañ daan tudde ba ñu follee koo kenn ku nekk daal looy def na nga ko mën ki ñaak suurul bu ñàkk ñeddeet du ko tax a regg te dañ la ñaaw ca tibbin jërëjëf bismillah Ndoye Mimi Traoré nee na la ka ca naqadi mooy léeg-léeg nit mayee ca lu mu mhm. wax daal di dikk noonu de la ko waxee bi damaa ree ba ah, am na ko fi maye woonub oto bët set kay muy laaj caabi ja waaw waaw waaw waaw ah, maye oto bi waaw ci xaal. waaw ci ay. Ah, anniversaire bu amoon ah, Sorano rek daal di dara da doon da doon da maye ca grand théâtre yëpp ay puukare la. Mm. ñay maye suñu mënoon dëgg duñ ko doxalee noonu. ku mën doo la ngay maye du feeñ. dégg naa dégg de. ku mën dëgg. dañu lay lemal ay million dañu lay voilà te ma tuddee bàyyi naa la àdduna ak àllaxira am na fi de. man la ku mën dëgg. dëgg la su lay jox. Ah. su ko nit xoolal. <laughs> su ko nit yëgee yaa ko wax. dëgg la uh-huh. dëgg la. dëgg ma ne la am na ci ñoo xam ne ay reeru guddi lañu. reeru am na ay nit yu ne ci dëkk bi yoo xam ne ay reeru guddi la reeru lëndëm. Uh-huh. xam nga reeru lëndëm. waa soo dajee ndawal danga yaakaar ne yow doo nga daj ndawal. dëgg la. suñ taajee fii mbaxalu mbaxalu mbaxalu biiru xar bu baax. courant coupé. ah ma làmb daj laxas. waaw. di ree defe ni man doo nga daj laxas fekk yow daj nga ñaare laxas <laughs> loolu am na ay kilifa yu nekk ci dëkk bi ñoo xam ne noon lañ mel dañ lay woo seen bureau c'est la vérité bokkal la lu baax te kenn du ko yëg soo génnee ku ko yëg yaa ko wax te dañu lay mere sax waaw soo ko waxee ñu mere mais am na ci ñoo xam ne nag ñoom balu ñu laa mën a defal caméra teew caméra teew ngeen dem Grand Théâtre ñu naan ah nee na diw nee na te loolu kuñ ko fi def cri yi dalaa war a woo xanaa xamu yi teguñu ko fi pour ay politiciens rek. ah dañu war di redresser. yenn yi di réguler dañoo waaw ñu ko fee teg pour ay politicien kese. képp ku dem grand théâtre yor fa pakkatu xaalis di ko baatre créé woola ni la xaalis bi nga doon maye foo ko jële gannaaw yow yaa ko war a wane nga wan wax ñu fu yow lan ngay liggéey ba war a mën a taxaw grand théâtre lu mat presque dix minutes ngay jox nit ki di ko jox di ko jox di ko jox foo jëlee xaalis bi créé loolu la war def. kooku koppar la nag bu bare. waaw te loolu artistes yi woykat yi nit ñi ay royukaay lañu dañoo war a wane image bu baax image dëkk boo xam ni ñii am na ci ñoo xam suñu añee duñu reer mm. am na ci ñoo xam na nga hôpital amuñu lu luñ jëndee garab mm. buntu télé baa nga nii fees dell buntu rajo ba am na ñoo fa bàyyi ah te ñoom xam nga nga xam loolu ba pare mm-hmm. ngay nangu nit ñi di ñëw sa sa biir soirée di baatre artistes yooyu ñuy baat rek kan nga ci gis kan nga ci gis muy dox ci social kan nga ci gis rek mu mu mu mu créer dara teg ko kan nga ci gis mu kan soo leen joxee lool ñu lem seen xaar toog seen dugg seen ruq lekk ko ñoom ak seenu seenu seen seenu seenu njaboot na narees ak jàmm mais mm-hmm. ay artistes lañu dañoo war a véhiculer message bu rafet bu rafet texte yi nekk ci seen way yi mm-hmm. ñu ñu ñu koy ñu koy ñu koy jëfee ñu dëggal ko ñu dëggal ko dëggal ko mooy tey ji d'accord naa nan leen may ku leen mën a may na leen may mais na leen may ci ci ci ci xam nga ci sutura. maanaam bu mu ànd ak frustration. waaw bu ànd ak ndax yaa ngi may kenn kenn ngi bëgg 500 sax mënu ko am mënu ko am nga maye ko ñëpp gis ko. c'est ça non non ca buntu grand théâtre ba fekk nga fa 12 personnes wala 100 personnes yu toog foofu di yalwaan amuñu lu lekk. yow artiste bi ngay wàcc sa oto di dugg romb nga ay nit yoo xam ne ña nga foofu di lay di di yalwaan ba nga jógee sa kër ba ni nga eggee s kër yaa ngi romb ñu yalwaan yow may dem ca grand théâtre di mayee benn cinq millions benn artiste sa koñ am na ci ñoo xam ne duñ añee duñ reer très bien mu mel ni nag waxtaan bu nu nee na nu waxtaan lii rek lañu koy doyee waaye nag balaa leen balaa maa dikk ci soxna Mamy Linguère Diop damay daal di dem directement à la régi ndax kër Aram jàppale daf ñuy dee jàppale itam ci mhm. biir émission mhm. ñu ngi remercier bu baax a baax li Libaas ci produit yu baax yi mhm. soxna yi mën nañ leen wax ne bu ngeen ko essayé amul regret waaye itam déglu bi émission amul regret Mami Linguère ndax li ñoo wax dafay wax dëgg yàlla yee jigéen ñëpp kër yi xumb na loolu am na ku jàpp nit ndax teraanga mhm. waaye itam am ku jàpp nit ndax ñàkk koy defal teranga et zigzag versa mhm. am na kër goo xam ne jigéen a ngi fa mënul sax bu xew amee mu dem ca ndax simplement ndeyam yebbiwul woon mhm. ndax simplement loxoom jotul gannaawam Mami Linguère mais xam nga démb tamit fan la ñu nekk démb tamit da nga wax lu am solo da nga ne yow da nga jaaxle ci koo xamante ne bu solo ba pare da musula defal dara lu baax solo ba xew am nga taxaw di ko gërëm ñu laaj la nga ne mënuma ko bañ a gërëm ndax nit ñaa ngi taxaw hypocrisie dikk mais xanaa xamoo ne kiy teralaate bis booboo tax muy teralaate solo ji boobu ba ñëw xam nga foofu dafa am benn wax bu sew bu ñu fay wax mu di mooy da ngay solo ji ba ñëw ñu ne su goro gërëmul njëkke gërëmul ku gërëm fimista nga ci waaw te nit moo koy wëy nit moo bëgg ku ko yëkkati nga dem solo ji salon defaru yàlla boo leen nekk ñaari wujj ci kër gi ñu ne kii moo gën a mën teraanga booy ñëw dañuy dem uti ay sëru rabal mm. lalal la ko ci bunt bi mm. commencé di la woyal mm. naan la bul solu te bul summi ko sa jikko ji solal na la mm-hmm. léegi nag keneen ki nga xamante ne moom xay na amul teraanga wala loxoom jotul gannaawam ñu naan ko yow moom lu leen neex dinañ ko ko gaaruwaale ci biir kër gi mm-hmm. su ko defee moom dafay tuuti mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne bis bi ñuy xewal seen wujju du génn seen néeg Mm-hmm. wala suñu génnee yàkkamte nañ daw duggaat parce que ñu ngi leen di gaaruwaale mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne defante bu mooy ci bis bi ñu ba ñëw dem na salon waaw mi ngi ñëw su dikkee la ñuy wan àdduna li mu fi doon liggéey su ko defee nag yow nga nga commencé di tuuti ci seen biir mm-hmm. ndax ne famille lañ entier yow nga nekk benn nit xay na wala yaw nga nekk ak sa fami doo bëgg jour boobu ko la toroxal bu ko defee nag bu ñu gisee nag yow sa yaay commencé na ñëw di dugg di génn valise yi di dugg di génn ku nekk ñëw taxaw maay sa njëkkee maay sa goro maay sa wuj lii man maay jaam bi ci kër gi man nga war a may man nga war a def lii dama fi mës a wax ndoy baan benn jour ma ne ko jeeg ji dem Chine mm. bu ñu muusee ko demate bul jënd benn marchandise nañu indi ay caméra maanaam bu ñu dikkee ñu jaay ko jeeg buy laaj dépense sax yor caméra di filmer Sénégal loo fiy def te tegoo caméra kenn du la ca jox la nga yelloon boo ko weddee laaj ko ñiy defi social dëggantaan boo demee nii nii nii di laaj mu wóor la ne amul caméra doo ko filmer doo ko wane duñ la jox dara ah. wala ay 10 000 lañ lay jox ak i 5 000 mais su fekkente ne luy am caméra la ñëpp ay ñëw mhm. ñëpp a cay def mhm. ñëpp a cay bëgg a feeñ ñëpp ay bëgg nga tudd leen ci mhm. kon xanaa léegi dem nañ ba yàllay neen nekkatu ca mais man dama am leneen luma ci tiital mooy dama gis ne jamono ji coupé décalé xewee Abidjan ñuy wax papa coupé décalé nga xam ne moom moo daan artiste bi nga xam ne buy tëgg moom mooy génne xaalis di may nit ñi moom mooy génne ay montre di may nit ñi moom mooy génne ay parfum de classe di jox nit ñi ñuy jël xaalis bi di ko sànni ci suuf dama gis ne yàggul dara réew ma tàkk sama jàngat bu ndaw la nit ñi may waxal boroomi xel lañ lañ jàngat ba xam mm. yàggul dara réew ma tàkk ma gis ne bi ñu commencé grand sumo tamit ca sa réew ma Mali ñu commencé di jël xaalis bi di sànni ca suuf yàggul dara réew ma am problème ma gis ne Sénégal itam bi ñu commencé di jël xaalis bi di sànni ci suuf ci grand théâtre yeeg di battre ak léegi yenn yu bare ngi fiy xew yu fi musul a xew est-ce que du kon toroxal boobu ñuy toroxal xaalis te yow mënoo ko ñàkk ci ngay faj sa soxla est du moo waral yenn jafe-jafe yi di am est-ce que loolu jarul seetluwaat man nag dee boobu la nan ko arrêté léegi nu mu gënee gaaw <laughs> nga fi tudd yépp daal wax dëgg yàlla te dafay troubler nit nañu ci yàlla musal nanu ko arrêté ba mu ah, gën a ah, gaaw ah, lii nag mbokk yi ñoo ko déggandoo <laughs> amul werante dëgg dëgg li ngeen nangu ma ki man moom ab ragal la jëlal ma ki ci ligne bi wa rahmatullah <laughs> allo allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Mamy noo xanaa di la sant ak di la ziyaar di la déglu ci sa émission bi di warees seen waxtaan bi rek kontaan ki seen waxtaan bi bëgg yàgg dugg nag seen waxtaan jërëjëf mami ngeen di wax lu am solo. Mm-hmm. mami yéen a ngi wax lu am solo. ndeysaan. yéen a ngi wax lu am solo. Mm-hmm. parce que li ngeen di wax ci teraanga. Mm-hmm. mami da ngay sëy di def sa teraanga di def teraanga di def sa teraanga mami. nga sëy un bon jour. ndeysaan defatoo ñu ne sa jëkkër lu mu liggéey. yow la ko jox. billaay ñu commencé laa xeex mami. waaye gis na jigéen bu ci muur. ngay sëy da nga jàpp ne yow sa jëkkër mooy l'essentiel bi. na nga sëy te yàlla tax defar sa sëy ba mu rafet jàpp sa mhm. jëkkër mhm. waaw mooy l'essentiel mami goro yi njëkk yi ñu ngi def façon yoo xamante ni mhm. danga naan yàlla booy sëy famille boo xamante ni yow jàmbur nga fa am sa mbokk ndeysaan boo ñëwee mami dañ lay ber di la xeex billaahi wallaahi waaye soo ànd ak suñu borom xam ne àdduna dara yàggul ak ay dëgg te lépp si ay nekk li lay mujj bul xool ku la gërëm. dëgg la looy def defal te yàlla tax. dëgg la waaye def te yàlla tax moo gën lépp. Mhm. Mhm. ndax boo def te yàlla tax te muñ te yàlla tax sa njaboot ëllëg bu ñu màggee rek ku la bañoon dina la bëgg. dëgg la. ku la bañoon rek dina la bëgg bëgg. Mhm. seen émission bi nag am na solo yéen ngi wax lu rafet. jërëjëf jërëjëf yéen yéen nit ñi dem ba léegi maa ngi bëgg a dugg. lu baax rek ngeen di wax. jërëjëf tey xam naa nag bu ñu jógee ci émission bi moom. ñu bëri dinañ soppi jikko. Mhm. ñu bëri dinañ soppi jikko parce que kër yi tas na mami. mami Diop kër yi tas na. problème yi bari na. problème mi bari na. Mhm. nit ñi lu ñaaw rek lu ñaaw rek la ñuy fas yéene defanteeg yow. Mhm. boo solu bi jee ba ñëw ñu ngi wàcc ñu la xasee. Mm-hmm. mami daal yéen a gën a xam ne ci kër gi parce que wax ngeen lépp <laughs> émission bi moom wax ngeen lépp barke Sëñ Tuubaa wax ngeen lépp <laughs> yal na yàlla bàyyil Eva Tra moom ak Ndoye Bane amin amin yàlla wéral seen i baat wéral seen i cër amin amin xam naa nit ñi moom kenn mënu leen a soppi waaye ngeen di wax rek wallaay <laughs> nit ñi moom uh-huh. kenn mënu leen a soppi waaye dinañ wax rek ku bu yàggee dina xëy dinañ soppi uh-huh. kontaan naa daal li ngeen wax daal waaye xam naa ne kër yi moom yàqu na moom ndeysaan bëgg nañ lool soxna li ngeen mhm. suñu xarit boobu li mu wax dañu ciy dellu si tuuti dëgg la gentillesse baax na mhm. nga nekk ku douce baax na mhm. waaye am tuuti fermeté ci sa bopp ak ci ñeneen loo xam leneen loo xam ne bu dikkee dalay yàqal bokk na ci jaamu yàlla ak sa ëllëg yow bëgg kut ka kut nit ñi gërëm la tax nga def loo mënul te xam nga ni lii nga mënul boo ko defee bu ëllëgee inconfort total ci ngay dëkk war na tax nit toog def pose def réflexion ñun tam jigéen ñi nañu réfléchir nga may ma ma jël ki ci waaw demal te ñëw salaamaaleykum comme doy ban rey na ba bëgg a dee allo mu mel ni dem na waaye du ñàkk keneen toppati ko ndax ligne bi fu mu ne nii ay buuxante la te njaayeen yee ci ëpp <laughs> doy ban la ñuy wër hmm. allo allo mami Linguère dama ne xanaa bëgg satisfaire nit est-ce que tax na nga dugal sa bopp ci inconfort non xam nga jërëjëf man damaa gisagul kum yokk ay poids yokk sa poids kii cinquante nangam kilo la doon pesé jërëjëf a ko tax a doon cent mm. gisaguma ko mm. gisaguma ko fi jërëjëf yokki atam mm. gisaguma ko fi jëf wàññi atam léegi saay mu defar wala d'accord waaw dina defar waaye xam nga boo dee boo dee borom jom itam gis nga gis ah. nga gis nga lu dëgguwul waaw nekk ci xo ci ci xef yi di lapp-lappi nekk ci xol baa ko gën dëgg man li ma lay wax te nekkul ci sama xol dama koy préféré ma noppee ko ci yoon xam nga tamit bu fekkente ne man li nga may jox mu teew moo tax ma ne la jërëjëf Ah. heure boo ko teggee ma wax la safaan ba. waaw dëgg ndax ñaar rek am. wax nga dëgg gërëm wala xarab. ahankay boo ma joxee ma gërëm la heure boo ma noppee jox ma xarab la. waa nit mënul dëkk ay joxe. du ne wala fay wax nee na lekkatu mooy may ku ko mujjee jox lay gërëm. ah parce que kookoo safal eh, da nga koy jox rek muy gërëmaat. kookoo safal ceebam. Ah. xam nga yow la nga ko joxoon daaw fàtte na ko. waaw dama ne su reer doon doy reeri daaw ya doy. ci dangay gis fii koo xamante ne di wala daggal bi yëpp màkka ca ba màkka di di di di metti lool. Mm-hmm. nga dem ca ba ñëw. keneen lijjanti ba amul billet ñëw may la ko mhm. booy gërëm da nga naan moo ma yóbbu màkka barki dem su keneen ki ne nii nga ne ko billaay yaa ma njëkk a yóbbu mhm. da waroon a njëkkee ci njëkkeekaay ba mhm. waaye li mujj moo li bees rek moom ngay gis yow xanaa xamoo ne senegal lu fi bees jekk ba mu des bàmmeel loo fi teg mu bees gaa yi bëgg nañ bàmmeel dong lañ bëggul ci lu bees dëgg la ndooy bismillah yàlla nañ fa yéex a dugg waaye <laughs> dana ma reetaanati <laughs> jël nga Eva naam baan man góor ñi laay waxal sama moroomi ak ñi nga xam ñoom a mag hmm. ak sunu rakk yi hmm. ak suñu jarbaat yi dëgg nañ moytu jigéen ñi ku ci moytuwul jigéen ñi dinañ la tëj ci kaso bi ay xeetu jigéenam sax nag voilà parce que hmm. sa soxna mën na laa dugal ci loo mënul wax nga dëgg loo ko nopp nopp loo ko bëgg bëgg loo ko yërëm yërëm bul ko topp ci ay bëgg-bëggam soo ko toppee ci ay bëgg-bëggam dina la teg loo mënul te bis bu la tegee loo mënul dina la sàcc loo mbaa mu fen loo la dëgg la su la dugalee ci kaso bi nag ca kaso bala lay fekk ne la may la may ma sama baat surtout soo amee goro bu bëgg àdduna su sa jabar amee doom mu bëgg laa teg loo mënul te li ma gën a contre mooy ngay dem di mami di ma may doomam ma dem mami man man mami sama goro ki ta tawar a takk doomam moom yaay ndaw si mm. sama goro bi naan ma mm. waa sama doom bi jànq laa lay may temps ngay joxe man su may takk jabar yow yaa may imposé lu may jox yow yaa ngi ñaa ngi ni seew joxe seen doom yi yow nga nga naan am na man soo ma ko laajee ma balaak sa doom très bien ma jël ki ci li mi ndax xam ah, nga am na ñoo xam ne danoo foog ne warugalu doom bi daal bu dikkee loolu daf leen war a defaral seen àdduna hmm, hmm. loo xam ne la boo ko jotee dañuy jaay jaay seen nga lan ba koog doomam seet nu jël ki ci ligne bi baan jëlal ma ki ci ligne bi salaamaaleykum allo allo allo xam naa nekk fi dégg nga mhm. ak sa jabar sa soxna am doom sa yaay di am am am audace di ñëw sa kër. dafa mel ni nga baal ma ki ñuy waxal mi ngi mel ni mi ngi fii allo salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokk mi bi simila def ak ñu ngi sant yàlla te di kontaan ci sa woote. alhamdulilah yàlla na sant yàgg. amiin yaa rabbal alamin. waaw man nag man ku may njëkk sant mooy Ndoye Bane moom toog. axal kay. waaw Ndoye Bane moom xam naa ne moom bu ñu mhm. lu ci bari. Mm. yaakaar naa réew mi dana defaru. dëgg parce que dama koy déglu xalaat chaque jour. Mhm. te gis naa ne tamit mu ngi def lu am solo ci réew mi. yokkal yokkal sa baat tuuti rek. waaw gis naa ne mu ngi def lu am solo ci réew mi. dëgg la ba xalaatam bu mujj bi tey rek euh, femme bu doon woote affaire sëriñ boobu nekk ci di nax nit ñi. Mhm. ah maa ngi ko doon déglu. Mhm. waaw mais nag dama leen sant ci seen émission bi parce que man mii du xëy na xale bu ndaw laa mais dama gis ni tamit jamono ñu toll nii. ñi dafa mel ni dañoo fàtte kaleen sàkk. te dafa mel ni sax léegi jaam doomu aadama la ñuy jaamu fàtte yàlla seen borom. Mhm. te ñu ñi léegi maanaam bàyyi ko ñu xel ci yàlla. Mhm. xool ñu seen doxalin xool ñu seen taxawaay ci jamono ji. Mhm. te li nga lu ndaw si wax sànq moom laay firndeel. ndax jamono ñu toll nii boo xoolee tey ni àdduna bi di doxee. ñit ñi di rayante ñit ñi di jamante paaka. ñit ñi defante n'importe quoi. ñu yor xaalis. jël xaalis seen xaalis di ko pasar pasare ci soirée yi mm-hmm. di ko sànni si soirée yi te xaalis da koy ormal mais bu ñu demee ba di jël xaaj di ko sànni si soirée yi la nga xam ne tey ñoom ñooy ñëw di doole yi di ko xool seen i bët seen xol yi di ñëw ñu bëgg si am ñu ko am hmm? borom doole yi di dimbalante seen biir nii du doole yi di toog chaque jour di torox xam nga loolu tey dafa doon benn taa boo xam ne tey muy maanaam sénégalais yi nga koy dund te xamuñu ne lii ñu hmm. sàkk bu demee day dem ba benn moom day taxaw lu ñu seetaan ak àdduna te loolu lépp dañ ko war di moytu nit ñi nañuy jaamu yàlla tey delloo seen bopp ci yàlla. Mm-hmm. alalu àdduna moom lu mu ne gaañi gaañi fii ngay dee ba ko. ak ay dëgg mais man émission bi wax dëgg yàlla dama koy rafetlu bu baax parce tamit yéen a ngi def yee waa dëkk Ndoye Bane moom moom yàlla na ko fi yàlla may gudd fan ak wér. incha allah yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér bàyyi ko bàyyi ko taxawaayam lu ne nag dina ko dégg nag nit ñi dañ koy wax di ko wax n'importe quoi waaye nag mm. santal yàlla. man dara parajo ma de. waaw waaw waaw man xam naa loolu moo tax loolu nga ma neexee. dégg na la de santal yàlla santal yàlla bu baax na la de. yaa ngi ma dégg. santal yàlla bu baax a baax. da nga yow foo toll la gënal di sant parce que fu la nit ñi rek am na ñu la fa bëgg. Mhm. Mhm. ceeb ngi yee lu mhm. yaay booy wax sànq di yomb. waaye nag di ci émission a baax. jërëjëf. très bien. dellu si waat ci yow. c'est fort parce que Eva kii li mu wax dafa dafa am solo lool. nit day toog fa mu toog di la seetaan bañ la te doo ko def dara bañ la rek gis gis kanamu ndoy baan gi neexu la rek wala la wax ndoy baan di wax neexu la rek nga bañ ko wolof daal di cee yokk ne na nga ko muñal ndax ki la bëgg te defaloo ko dara ca ca laa jëm dalay xool rek bañ la te defoo ko dara xamoo ko xamu la mu bañ la rek gratuitement di la ñaanal la bon ah. nit toog fa mu toog. Ah. bëgg la te yàlla tax di la ñaanal. wallaahi te yàlla tax te xamoo ko. te yàlla lu baax la sopp lu bon yoonam new ci. diversité boobu nag mooy àdduna. et c'est la beauté des choses. c'est ça loolu mooy loolu mooy loolu mooy àdduna. Mm. waaye nag moom ndoy baan nag yàlla bind na ko bind goo xam man nekk tooguma fii pour di wax. nit ñi lu leen neex wala kii ma def du kokalaan euh, sëriñ buy la naxe. sëriñ buy. buy naxe lu mu wax ci xalaas. waaw waaw mooy mooy mooy dóorkat yi mooy. buxaaba nañu ne ne waaw kañ buxaaba. du sëriñ buxaaba yi nga xam ni. sëriñ lu baax rek ka tax a jóg waaw buxaaba yi nga xam ni jigéen ñi dañ fay ñëw ëllëg ko ñu ñaanal leen ñu leen di jéem a sàkku ba di leen ëmbal ak yooyu. waaye xam nga lu ma ci yokk Mami Diop donte mm. c'est pas le thème. Mm. jigéen dafaa gàtt tànk. yow mënoo nekk jigéen. bu xaaba woo bu xaaba nga teg fa tànk sama nangam bi na def nangam mami jóg ma ma bokkal plateau na dem ba mag plateau bi bu yàggee faw danga nga loo xam ne doo ko xam <laughs> jigéen day gàtt tànk seen xam nga dëgg yàllaa ko moom tànk <laughs> day mënoo nekk fukki sëriñ nga bëgg leen a wër yàgg-yàgg ci fukki yi fukki bu xaaba yi da nga am lu la sama sama maam nee na woon ci liñ sama maam nee na woon tànk bu dëkkee ndox te lee ah, toog ah yàgg-yàgg joggi lu ndox du raxas te nag laaj ma fulla yëpp ba na ma jaaxal mm. fullay sunu borom <laughs> moo ma jaaxal allahu akbar bu dee atte day attee nu ko neex na nanu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum aleykum salaam kilifa gi bisimilah yaa ngi ci émission wareef ah bisimilah maa ngi nuyu ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay di leen ziar lu bëree bëree bëree ñu ngi la koy delloo lu bëree bëri bëgg di kontaan seen i kontaan seen émission bu baax a a baax a baax a ngi ci waxtaanee lu am solo lu rafet rafet rafet loo xam ne luy defal luy defal société bi la est-ce que maa ngi bëggee Ndoye Bane lu bare bare bare bare euh, mm-hmm. di ko xamal ne ñun dina sénégalais bi ñu am ñu am fu la bëgg lu baax lépp mm-hmm. ñoo koy ñoo koy bàyyi xel tout le temps ndeysaan euh, Mamy Diop nag moom xam naa ne li mu naan maam bi yàlla na mag Nelson Mandela <laughs> wé wér na te leer na te xam naa ne fi muy fi muy génne ak li muy wax waaw doonu waxu koo xamante ni euh, waxu waxu waxu génération am macha Mm-hmm. xam naa waxu waxu waxu mag la waxu mag lay wax kilifa daal lay wax. <laughs> dëgg la dëgg la. xam naa ne am na kilifa bu muy bàyyi bu bàyyi ginnaaw bu koy bu koy bu koy lii. bu baax sama maam la. waaw euh, moom wax dëgg yàlla moom ñoo ngi ko ñaanal moom tamit euh, gudd fan ak wér bu ba bu bëree bëree bëri. incha allah. di la ko di la ko ñaanal yow Eva. jërëjëf. di la ko ñaanal yéen waa TFM yëpp. Mm-hmm. incha allah ñoo leen di sant leen gërëm lu bëree bëree bëri di leen xamal ne tout le temps moom ñoo leen di bàyyi xel baax a baax a baax diwaanu mm. Koungheul. jërëjëf mm. ok jërëjëf euh, merci kontaan nañu baax a baax seen waay. jërëjëf Ndoye Bane yaa ngi woon ci yu am so euh, so euh, solo solo. dégg nga Eva. Mhm. ñi nañu moytu. Mhm. tey ji man man sama soxna yow sa yow góor sa soxna am doom. Mhm. sa yaay. ñëw ca kër ga. ci sa jëkkër di ko wax nu muy doxale yow sa soxna su amee man sama soxna su amee doom. sama yaay soxna luy yoonam ci sama ngénte lu may lu may organiser man te sama yaay ne fi. sama papa ne fi moom kay na na na na na doom rek waaye man xar ma may jënd laax ya may togg ceeb ya may togg man sama yaayu jabar du ci yoonam say am na ci ñoo xam seen yaay jabar yéeneen ñëw di leen organiser mhm. naa temps yi ngay joxe temps ngay joxe temps <laughs> man moom soo ma dee génte yaa asso ma ngi may seetaan démb de nee na ma <laughs> jox ma numéro mami nga nekk fi di ma dóori xeer mami toog di seetaan jàppale wu ma ah, jox ma numéro mami mooy sa jigéen mu naan ay ay ngéntal ndoy baan lii di jaaxal na moom di àdduna bépp ko xam kër gi daana rew fees dellu waa ndoy baan ah. waaw xam ñaata million nga may jox man ko million yu la xam nga moom sama yaay daa am dafa dafa dafa am équipe équipe la yor équipe la yor équipe bu jaar euh, nangu nu mu tuddee Penda Lo. waaw. Euh, Abi Fade ya ca Gambie. Ah. Euh, Mariama Fade ci Amérique. Ah. ñooñu maanaam gang la yor goo xam ni. ñoom ku ñu may ja ñooñu ñooñu ñooñu ma lemal ku ñu may jabar. groupe njaak. groupe njaak ah. ñooñu ku ñu may jabar sa affaire baax na. dañ lay teral ba ngay daw. sama benn càmmiñ ngay ut soxna de. ñooñu demal ci ñooñu. ah maire buri buri buri buri buri maire buri waaw yaa ngi ko fi wax buri mooy soxna sama maam Assane sekk fii ci Mermoz waaw ànd ak bu Seck ak Ami Seck ñooñ lay àndal euh. gàngoor goo xam ni euh. ay kaar la ñuy régler waa bi ñëw waa Amérique ñëw ñu ga ñëw dem di teralaat moro moromu mbokki Fatou Tamba Diagne Senghor yi bis bu ne ah. ñooma bis bu ne ma ñëw nii dama leen di filmer yéen teg leen ci télé bi parce que yéen li ngeen nekk ñoom Adja laal la foo leen dem ñu ne yaay waa kër Ndoye Bane a ngi nee nag waaw nga nekk ci tele bi di wax sa waa kër ngi nii ah. di def ay njaag nangul na ko wax man nag sama waa kër ak ñëpp laa ci yemale pour ci hmm. def yooyu su ma ko xamee dama koy wax dama dama damay wax nii damay wax nii yàlla la Sarr ñoom soo demee docteur Alioune Sarr soo demee benn groupe bi la rek <laughs> benn groupe bi la ñoom ñëpp loolu lañ fi nekkee lu ñu liggéey da leen di jox xaalis pour ñu jënd koy garab faj seen bopp lekk yàpp <laughs> lekki ganaar faju ah. ñu dajale ko di ko di ko di ko terale lool pour lan la <laughs> ah man loolu daf ma jaaxal c'est que toujours ma posé leen question bi mais doole ma tontu ah. naka ngay eh yow sama yaay nga. mami sama rakk la. waaw mami am na doom. Ah. yow Eva eh, yaay. nga ne ma Ndoye Bane yaay sama doom. sa salaire bi tibb ci benn. cent mille francs jox ma naan awa sarax ñu jël ki ci ligne bi noonu ko jël. <laughs> ah noonu jël ki ci ligne bi ndax yàgg na fa. salaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimila mbokk mi. soxna ñu ngi sant yàlla. Eh, la Eva Tra. waaw man la. Eh, man la madame Seck depuis Marie. madam madam sekk wala Sock. Seck. madame sekk ñu ngi lay nuyu bisimilah. maa ngi leen di fay di rafetlu seen émission bi. merci beaucoup. di leen fàttali ne boo leen di nuyoo. di leen ciy sóor ñi nga xamante ni ñoo leen sopp te duñu feeñal seen bopp. ndey ndeysaan wallaay wax nga dëgg. donc xoolal mami mami sopp nañ ko lool ndoy baas ndoy baan aussi sopp nañ ko lool. ma bàyyi la ak mami sax ndax ngeen déggante. moo ngi noonu ndax man moom sax laa bëgg waxal. lingeer bi si la waxal ak moom. waaw maa ngi lay ziar. ça va naka waa Maris yëpp. ñoo ngi fa ñoo ngi ci jéggalu bis ni ki tey moom yéen ñëpp la ñuy boole bu neexee yàlla. dëgg la day leen mis di sóor. incha allah da nga wax sànq lu am solo mami. Mhm. mooy ku dem solo ji salon ba ñëw ñu naan su góor a gërëmul njëkkee gërëmul. ku gërëm fimiste la mhm. ma la ciy doon ne la. loolu mhm. wax ju am teguwul la. ndax man dama naan su ndey gërëmul bàyyi gërëmul mag gërëmul rakk gërëmul keneen ku gërëm féministe nga dëgg la mm-hmm. dëgg la ndax suñu nee diw baax na mm-hmm. nañ nga ndax mbokk yaa ko wax wallaay baax na lool toppatoo sa sëy toppatoo mm-hmm. sa ay goro toppatoo sa ay njëkke ndax suñ la xësee ba maye ñooñu ñooy nekk sa famille dëgg la waaye bu nit amee xel tuuti dina xam ne ku feebar ñu ne ani mbokk ya wallaahi boo feebaree sa ay mbokk lañ lay delloo. Mhm. soo mënatul sa ay mbokk lañ lay delloo. wallaay mhm. donc na ñëpp rafetal. dëgg la na ñëpp rafetal. Mhm. Sénégal nag gaspillage bi léegi bëri na fi lool lool lool lool lool. yàq rek. toog di xew tant vingt heures ba six heures du matin. c'est vrai teguwul fenn. dëgg la teguwul fenn nañ def teraanga yi ci sutura. ndax teraanga baax na ndax. yonent bi moom moo ko santaane waaye comme li ñuy wax loxoy kajoor day weesaloo dëgg la dama am benn xarit mu am doom mm-hmm. belle famille am ay malien lañu mm-hmm. dañ ko jëndal ba jëndal ko machine à laver mm-hmm. dëgg la ne ko ñun ñun loolu lañ xam ndax ëmb neuf mois dafa metti su kenn xaw laa rey dëgg la donc yow waroo ñu teral ñun ñoo la war a teral. axan ah, mhm. kay loolu war a joxe jàngat bu bëri bëri bëri bëri bëri. Mhm. ci nit ñi teraanga day weesaloo. wallaay wax nga dëgg. man xam naa ko nga xamante ne nii goro bi bu joxee goro bi piis goro bi daggal ko fukki poti cuuraay ak ay sër indil ko ne ko doo ma gën a gore. wallaahi. Mhm. lépp noonu lañ war a gisee. dëgg la lañ war a doxee. defalante teraanga te yàlla rek tax. wallaay dañ ko def ci dañ ko teg ci wane wu gaa ku am xew sa mbokk yi dinañ ñëw mhm. ñëpp dinañ ñëw ngeen defalante ne nañ ko mhm. ci sutura ak ci lu neex suñu borom mhm. di leen gërëm nag di leen sant di rafetlu chaque jour seen émission jërëjëf jërëjëf ñun ñoo lay sant lu bari ak di waa Maris yëpp ak ak dal gi ndeysaan billaay ndeysaan elle est posée xam nga dafa dikkee fi ma waroon waxee ak ndoy baan goro bu dikk ci sa kër goro bu góor bëgg ko dirigel jabaram ma bëgg la wax ni am na ci xeet yoo xam ne boo demee ñoom bu nu taseeg seen goro ca buntu kër ga boo moytulee seen tànk yi jaxasoo nu mhm. faxastalu daanu dëgg la kaay bokk ak sa goro ca table à ba nga reer da nga reer bu fekkee ne toog nga reer mhm. doo mën a xippi xool sa goro bu góor mhm. sañoo ko dëgg la am sañoo sax sàqam yi ndoy baan dama lay wax do booy lekk yaa ngi yaa ngi rus sa goro bu góor gis la am na ci ay xeet. ñu mm-hmm. ñun itam Dakar ak Sénégal. ñoo mel ñun ñu nu mel. Mm-hmm. waaye am na ñoo xam ne euh, nuyoo nuyoo goro sax jaral na leen. bu nu yeewoo ci kër xam ne goro baa nga ca kër ga ñu sànguwaat rek. dafa am ci ay xeet amul beneen xeet boo xamante ne sax soo wasinee goro ku góor ki. Ah. ñoom ñooy ñëw euh, mbokki ku góor ki ñoom ñooy ñëw teral si sa yaay yow. ndax moom moo leen may jabar est-ce que du Gàmbi xaw ma. Gàmbi kon ñoom ñoo leen may. jabar Gàmbi ngay ëmbal eh. leen wasinal leen. mais mais Linguère pour wax la li nga wax dëgg la. Mhm. dañu war a tegaat mbir mi xalaat. Eh. ki la may doomam bu jigéen. doomam bu jigéen mënoon a toog ca kër ga di ko servir mu jël léeg saay bennam eh. fayal ko jàng may la ko mhm. doom ja dugg ca kër ga di fa am yu ko neex ak yu ko naqadeeg yu mu mën a nettali ndeyam ak yu mu ko mënta wax mhm. doomam waroon ko jàppale mu jël ko dugal ko sa biir sëy may maanaam may na la ko nga dem nag ba kookee wasin mu war a indeeti teraanga di la ko jox faaw ñu yombal yëf yi pour que mu mën a rafet assemblée nationale baan jëlal ma ki ci ligne bi la dellu si assemblée nationale ca hémicycle ba nga jël moom de assemblée la jëme xew wi allo allo oui allo allo yëkkatil baat bi tuuti rek dégguñu la allo allo oui oui bonjour bonjour ça va na ngeen def ñu ngi sant bu baax maa ngi leen di nuyu di leen sant yéen ñëpp. ñu ngi tamit seen émission bi c' très intéressant mhm. jërëjëf bon man sama wolof baaxul noonu yëpp. Mhm. <laughs> je me débrouille. Mhm. je suis moitié sénégalaise moitié mauritanienne. Ah. et euh, vraiment seen sujet bi tey je trouve ça très intéressant. et. Euh, je dis toujours, fii nit yi dañu c'est vrai dañuy gaspiller trop ci mariage yi ci cérémonie yi. Mm. te da ngay gis kii ni ban wax léegi nga jox kenn xaalis pour mu lekk walla pour mu naan. Mm. mu dem mu jël ko. Mm. yóbbul kenn mu ngi xewle. wala la. walla yóbbul ko kenn ku wasin. loolu c'est vrai rafet na loolu. c'est bien Teranga de Fabach, mais je crois que aussi euh, il euh, y a trop de gaspillage. Mm -hmm. Parce que déjà li ngeen wax léegi ci sutura sutura dafa baax. Mm-hmm. Teranga boo koy defal nit déjà war na bari sutura. dëgg la mais fii da ngay gis kuy def teranga yóbbul ay délégation am. wallaay ndeysaan ñëw plus de cent personnes déjà hmm. ki ngay defal teranga kii da nga koy indi non seulement teranga mi hmm. hmm, nga teg ko tamit dara parce que nit ñi ànd ak ñoom il faut moom tamit mu may leen dara nga indi sa ay géwél nga indi sa ay nit moom tamit mu yëkkati dara jox leen nga loolu tamit moom dina métti si moom xëy na moom soraale wu ko des fois c'est une simple personne qui vient d'accoucher nga ñëw mu tuddee la doom wala dara nga def paan nga def sa ay euh, matériel tu viens nga tegal ko ko moom mu fekk yorul tu lui amènes un tas de personnes mm-hmm. ku nekk mu yëkkati dara jox ko et ainsi de suite du yow kese keneen dina ñëw keneen dina ñëw keneen dina ñëw loolu moo tax je dis toujours que booy defal ni dara même boo ànd ak benn nit ñaari nit sax c'est raisonnable mais des fois dañuy def délégation bu ëpp bu bari mhm. man sax des fois su ma ci àndee damay rus ça me met mal à l'aise parce que nit bi si boppam da ngay gis nii qu'elle n'est pas à l'aise mhm. Mhm. alors que je dis vraiment cette émission bi man franchement je trouve que bon seen trois derniers thèmes yëpp la seetaan c'était vraiment intéressant pardon merci euh, beaucoup huissier yi ak euh, accident yi vrai. mais là aussi c'est vraiment très très important pour la société ñu xam ko ñu xam teraanga nan ñu koy defee ak à quel moment et comment tant mieux et maa ngi leen wax yéen tamit euh, franchement vous êtes euh, vraiment superbe c'est une émission très intéressante Merci. Euh, bah, Mame Baye c'est comme ça non mm-hmm. Mame Baye Ndoye Bane j'aime bien Ndoye Ndoye votre franchise et j'aime bien le fait que vous acceptez vous argumentez seen wax sa wax doo nangu kenn wax la lu nga bëggul wax mm-hmm. et j'aime bien franchement euh, euh, qui est magnifique et très classe da euh, nga euh, rafet macha allah. macha allah Machallah, machallah. Je dis tout Eva, simplement machallah. Eva Tra, tu es très gentille, très chic, mm-hmm. très posée. Yalla na leen yàlla defal yokkute. C'est comme ça qu'on dit. Yàggal leen fi inchallah may leen beaucoup succès. C'est émission bi très très intéressante. Et je n'ai pas l'habitude de regarder la télé sénégalaise. waaye rek laay seetaan. Et franchement félicitations encore. ndeysaan. merci merci beaucoup yàlla fay. amiin yaa ma aalamiin amiin ñu ngeen nuyu waa Mauritanie bu baax a baax. waa Tabrax Zeyna. sunu xel dafay dem ci njim Amadou Boubou. saan yàlla na suuf sedd ci kawam. ñu ngi nuyu toute sa famille également la famille. Euh, de du colonel jara mhm. jara ñu ngi koy nuyu. Mhm. waaye tam di nuyu wax dëgg yàlla papu ak yaayu Sali Dieng. Euh, Astou Dieng ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. Mhm. Euh, di nuyu tamit famille Kumba Betty Dia ah ñu ngi nuyu famille Kumba jaa Dia jaarale nuyoo bi ci loxo caat ñu koy wax rek wax dëgg yàlla si. jërë ngeen jëf mhm. njaaraama comme ni nu koy waxee mhm. xam nga Mauritanie ak Dakar benn la wanni biikum comme ñoom nañ koy waxee dama am sama benn xarit bu jógee France bu fa nekk diya ba yàgg ci ligne bi mhm. est-ce que bëgg nga ko jël non dañu ñëw ci sa xarit ba nekk France ñoom ñoom moom émission bi salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam soxna su baax si maa ngi lay ziar waaw ajaar na nga def yow moom nii ma la déggee nii <laughs> hmm. xam naa ne njaag nangul nga ah moom laa de te dama yàgg ci ligne bi nag <laughs> waaw ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax nag dama yàgg ci ligne bu ñu ngi la ciy jé ñu ngi la ciy jéggalu lu bare bare dëgg la ndax seen thème bi daf ma daf ma soxal trop mm, yow rek la ñuy déglu neex ma yéen tamit ngeen neex ma ndeysaan da ngaa baax rek def ceeg sotti maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay fay di la gërëm ndax taxawu nga jeeg yi ndeysaan lu rafet rek ngay wax jërëjëf man madame Sall laa tudd maa ngi tudd yow dem Sall maa ngi lay ziar waaw sa càmmiñ dooy baan tamit ku ma neex la ndeysaan faral di déglu seen mm-hmm. émission Mhm. ndeysaan vraiment daal ñu ngi leen di gërëm di leen sant Sénégal moom ameel nañ leen njukkal. jërëjëf ndeysaan. Ewa Tra moom waxatuma ko sax. ndeysaan. sa sama sœur la yàgg naa ko seetaan télé. Mhm. ndeysaan moom engagement. ndeysaan daal macha allah rek. jërëjëf. waaw man nag euh, thème bi daf ma intéressé. Mhm. li mu ma intéressé man dama di jigéen bu am jom. bari lu may bañ. te damay ñaan rek jigéen ñëpp yàlla defal leen loolu. amiin amiin ndax nit noo mel rek da nga koy sant yàlla. Mhm. wallaay dëgg la sa ñaari waajur. Mhm. yéen ñi noonu ngeen mel. jigéen ñu bari sax noonu la nu mel xëy na njuumte rek mooy am. Mhm. yàlla def nag ma xam tuuti ci dox bu ma doon dox bitim réew. am réew yoo xam ni yàlla def na ma jaar fa ci kàttan bu réew yi. mais li ma seetlu ci affaire gaspillage bi ñuy wax fii. ñun sénégalais ak Sénégal réew mi yàlla daf ñu jox euh, sutura. xëy na suñu maam yu baax yi fi ñaan sax ñoo ko waral ñoo ko yokk daal. sénégalais dañ ko bëgg dañ ko fonk boo mm. nekkee sénégalais nekk fenn boo nee sénégalais laa rek dañ lay xool ca kaw mm. teg la ca kaw fonk la loolu yàlla moo ñu ko defal dëgg la mais boo ñëwee ba biir Sénégal rek dañ fi gis ay taar ak ay jikko yoo xam ne rek mm-hmm. yow bitim réew boobu ngay nekk sax ñoom ñu fab la teg la ca kaw sax boo xoolee ñoom ñoo la gën demeñ mm-hmm. par exemple boo xoolee ci affaire mariage yi man nekkoon naa ci ay réew yoo xam ne bu mariage amee tey mm-hmm. exemple xale bu góor bi ak xale bu jigéen bi gisante nañu bu bëggante nañu bu ñu demee ba tax ba nga xam ne sëy moo war a am mais yaayu xale bu góor bi ak yaayu xale bu jigéen bi dañuy waxtaan mhm. kenn ku ne da ngay joxe waaw joxe ba nag duñ ko tuddee warugar comme suñu réew yi ni ñuy def daal mhm. Mhm. xam ne da ngay ñëw ni ku góor ki nangam la am mu bari mu tuuti ñu may ko mais dañuy seet kenn ku ne la sa ndey am wala yow xale bi bu dee yaa ngi liggéey la nga am muy ku góor muy ku jigéen da koy diri teg si table te duñu seet ni ku góor ki moo war a gën a barale ku nekk rek li nga am te bëgg sëy bu baax da nga koy génne par exemple du tot dot lañ ko tuddee mais ñoom dañuy def contribution daal mm. à la réussite du couple mm. par exemple ku jigéen ki mën na yëkkati deux millions teg ni man lii laa am mm-hmm. pour man ak sama jëkkër ñu am démarrage bu baax mm-hmm. ku góor ki moom un million la am wala famille am un million la ñu am mm. xam nga kon ku jigéen ki moo gën a joxe lu bari mais mm-hmm. ñoom duñu seet loolu dañuy bëgg sëy bi baax ñu jàppale xale yi dëgg la ku góor ki mën na joxe ku jigéen mën na joxe deux millions wala mu joxe quatre millions mhm. ku góor ki ñëw joxe un million wala mu joxe deux millions parce que loolu la am mhm. xaalis boobu parents yi dañ koy jël dugal mhm. ko compte bancaire xaalis boobu kenn du ko pasar pasaree kenn du ko laal dañ koy jël teg ko fale yaa ngi may dégg ñu albatiku léegi ni mariage bi ban date la ñu d'accord ci date boobu ñaari xale yi ñooy xool bi seen liste besoin li ñu soxla ci seen kër muy darab muy basang muy muy vaisselle lu mu mënti doon lu ñu soxla muy yére muy serviette muy drap de lit couvre lit ñoom lu ñu soxla rek lu rafet loo xam ne bëgg nañ ko seen kër mën na dem ba ventilateur man mhm. na dem ba télévision mën na dem ba cuisinière dañuy def seen liste am fu ñu koy taf nag foo xam ne bu ñu dee marié fii la ñuy taf mhm. bu ko defee ñeenu ko digaaleel te saxee ñoom teraanga ñooy dem yow par exemple mami li sa doom bu demee par exemple séq ak ñooñu teraanga mhm. jëkk fa egsi xam ni kii kat man couvre lii mhm. laa séq ak moom mhm. wala kii kat man par exemple frigo laa séq ak moom moom day coché benn mais ba mu coché keneen ki ñëw ci ginnaawam du coché loolu de telle dañ koy topp topp ko topp ko ba nga xam ne moom daal ñu teraanga fii la ñu yem moom loolu ñu ko ko mariage dañ koy indi xam nga li la wax xam nga kon ñoom du ñu dem di jëndaat ay drap wala ñu di jëndaat ay seetu wala ñu dem di jëndaat ay vaisselle wala ñu dem di jëndaat ay télé wala yooyu mm-hmm, c'est vrai ça dépend rek ku ne sa niveau teranga ak defante nan la toll mm-hmm. mais du defante boo xam ne dañ koy fab di ko pasar pasare di ko jox nit ñi dëgg la épisode boobu bu fekkente ni passé na ba nu jàpp mariage bi jouru mariage bi mm-hmm. xoolal ñiy ñëw ñu rëy famille yi nga xam ne doon séq ak ñoom teranga kuy ñëw da ngay togg indi waaw te soor yaay yaayu xale bi du togg mhm. bàjjanam du togg kenn du togg mhm. yaayu ñamu seqal teraanga di defanteeg ñoom mhm. ñooñ ñooy togg yu baax ay bool yu baax indi sañse ba jekk lekk yooyu moom la ñuy séddale mais géwal du togg jaam du togg kenn du togg ñamu seqalanteel defalanteeg ñoom ñooñ ñooy togg indi ba ci garçon d'honneur yi xale yi am seen garçon d'honneur yoo xam ni dañu am seen kees di habillé seen bopp mariage daal man daal dama fa toog sama yaram daw ma ne man daal lii bu ma doon am Sénégal lii bu ma am Sénégal kenn waxatu ko uh-huh. ba balay mariage ba di jeex xoolal xale yi mën naa ne ay joxalante rek yu nu lebal wala yu nu leen lebal. mais loolu ba ban ku marié nag noonu ngay def. ban dëkk la. ah ban dëkk la. man loolu gis naa ko Afrique du Sud gis naa ko Zimbabwe. Mm. Ah, ndax def naa réew yooyu. c'est nag xam nga loolu dëkk yooyu ñooñu loolu mooy seen cosaan ak seen aada. waaw waaye fii ñun Sénégal. Mm-hmm. dañoo nekk ci dëkku diine boo xam ni dañ nii ku mm-hmm. góor ki mooy chef de famille. Mm-hmm. te yow loo dafa am lu la war. chef de famille bi moom pour il faut nga wane nii yow yaay chef de famille chef dafa am lu mu war a doxee maanaam lan lay sant lan la sas ci takk soxna dafa am loo war a joxe ba ñu xam ne kii nii ba ndaw si sentir ni kii mooy kilifaam mais fii nii ndaw Sénégal gii nga bëgg a takk benn xale bu jigéen yaayam jox la pour nga takk wala leen de doo wax de fii doo wax de su la su la su la sa yaayu jabar joxalee wala sa jabar joxel la sëy ba su demee doo wax de yow muuma ngay doon de. muuma ngay doon xam man d'accord naa ci ndax loo gis rek. muuma ngay doon la. te nag soo mais man dama defe ni gis-gis bu baax. waaw nga ah, nga copier ko avancement la. ndax xam nga ñoo ñun xëy na ñu ngi wut baat mais da dem ba doo am baat ndax sa yaay mooy am baat. Mm-hmm. sa papa am baat ndax ñoom xëy na ñoo la jur. yor la yar bu baax ba nga am loo jox jigéen. Mm-hmm. donc jigéen boobu bu ñëwee au lieu ñu dimbali ko en général am na nag famille yu baax man damay ñaan yàlla góor góorgóorlu bokk ci yooyu. mais yow bu fekkee sa papa ak sa yaay ñoo defar ba nga baax ba takk jigéen ba takk mhm. te yow sa papa sa yaay ñooy décidé yow doo décidé sa jabar du àddu sa goro lu mu liggéey dana ko yemale ca xew ma par exemple man fii lu ma sell bu fekkee ne yow famille bu bare xaalis nga la sa doom di takk yow sa dot day bare ñeme woo fa yóbbu 2 millions wala 3 millions parce que ñooñu dañu am te sëy yooyu généralement très souvent du du toujours nag mais généralement sëy yooyu xale ba bu ñëwee du la faale ndax fa mu jógee ñoom ñoo rëy mhm. ñooy lam bu xale ba du sax sëy ci sa kër day wuti appartement du jaar sa kër de. day mhm. wuti appartement am dëkk fa. boo ñëwee ñu réglé la ba nga ni tàcc balaa nga fay dem da ngay sonné wala nga jël rendez boo ñëwee dimanche ñun la maire tey amuñu bon. <laughs> waaw parce que xale ba papa wala yaayam patron lañu. mais foofu ban kilifteef la fa sa doom am. ça dépend ci ci góor gi ñuy daje rek tamit. ça dépend mais en général man li ma gis daal Sénégal léegi mooy sëy amatul. gis nga boo amul dara. sa doom amul dara liggéeyul ah, doo gis benn famille bu baax bu ñëw dugg sa kër gi ni man kat sa doom ak sama doom bëggante ñu ni sëy te yàlla tax doo ko gis de borom doole yi ñooy seen sa jabar mhm. mais boo amul foo ko dugal amoo liggéey amoo xaalis amoo dara jabar da lay tëx mhm. doo am jabar de Sénégal léegi ke intérêt fi daw te yooyu dafa baaxu te gis nga réew yooyu ma lay wax mhm. man dama gis jigéen ñi dañu am xaalis am oto yu rafet am immeuble di yóbbu seen doom yi Londres di yóbbu seen doomi États-Unis di leen fayal ay études te seen papa nga fa. Mhm. kon sëy yooyu a wax ni barkeelul. Mhm. non ñu barkeelul dama ni ñooñu dëkk bu nekk ak na ko nañ ko moole. xam nga dëkk bu nekk ak seen cosaan ak seen aada. Mm. ñun dafa am ñun ñu moole. dëgg la dëgg xam naa fi ngay waxee ndax man ci loolu laay dox. gis nga man waaw fii Sénégal sama kër sama goro gi sëy si sama kër. voilà fii Sénégal mais damay gis loo xam ne lii. par rapport ak gaspillage bi laa koy waxee. donc par rapport ak comprendre bi nga xam ne dañ koy def ci suñu xew yi. Uh-huh. yow boo jëndee fii ñaari nag genn wàllu nag ba day dem. doo xam fu mu jaar <laughs> wala yow ñi kay lekk sax xamoo leen bu ñu xëyee gis ne fee am na mariage bu rëy rek nga gis fii si fees dell te ñooñu xamoo leen yow sa mbokk yi sax doo am loo leen jox man gaspillage boobu laay wax mm-hmm. man côté boobu laay waxe mais dugguma sax aada na xam ñun Sénégal li ñu may suñu sutura bi aada la mm-hmm. ak am kilifa ak am diine Mhm. loolu moom yàlla moo nu ko defal ci monde bi waxuma sax ci Afrique. voilà ci bi la ko yàlla gis nga loolu yàlla moo nu ko defal ñu war ko sant yàlla. mais nag ak teraanga bu ñu am bu ñu am xoolal réew yee daan nu raw. Mm. <laughs> xam nga jigéen ñi lu nuy rawe ah. ñoom du ñu tegg di teggi de di teggi deux millions ci tali bi nii. Mm. ay ay tissu yoo xam ne yow bu ñu génnee sax lee dañ lay xas. Mhm. man j'ai une boo xam ni goro yi etak fale lañ nekkoon <laughs> Arabie Saoudite waaw ah. mais bu ñu leen indee teraanga dañ naan xoolal maire bi daal suñu armoire yi c'est plein de tissu de mauvaise qualité <laughs> ah, te jabaru frère bi lay wax mhm. bu leen indilee ay valise ba pare ñu jël lañ ca soxla ndax xoolal suñu armoire daal c'est plein de tissus de mauvaise qualité parce que teraanga yi ñu fi indi la mhm. te loolu moo fi am léegi c'est des tissus de mauvaise qualité loo leen indil ñu ko dafa dul sax baax chinois yi duñ joxe lu baax te léegi boo xoolee teraanga yi ci ëpp ay tissu chinois la ay capax capax ay per fii ay ay dàll yi ay moytul ma or ba de or nga dimbalee ko couple bi ñu am départ bu baax sa jabar sa jabaru doom ah, donc respecté sa doom sa doom respecté jabaram ta du mhm. tee yow boo amee fu laam fayda xam sa place daañu la teg sa place. moytul ma or ba ñuy joxe ci diggu géew ba de. ba or mbokk mi woote sànq daanaka moom itam wax dëgg yàlla indi na sax ay sous yu bare bare bare mm-hmm. bare mm-hmm. waaye loo gis faw dañ koy tënkaan. Mm-hmm. wax nañ ko sànq ndoy baan bi ngay wax waxu goro yi ma ne bu fekkee ne dañu wax wax ji nanu ko war a waxee nanu nangu ne mbir yi culture la. ndax culture ku nekk sa waaso sa culture. na ngay na na muy doxalee. waaye danoo toll jamono boo xam ne danoo bëgg lépp luy lu baax. ñun ñëpp ñu royandoo ko mhm. gis nga li mu wax sànq ba wax waxu liste de mariage bi boo demee ci naaru libanais yi mhm. da nga fa da nga ko fay fekk ñoom lay waaye boo demee sunu mbokku chrétien yi itam da nga ko fa da nga ko fay fekk mhm. ngay dem ci des personnes averties ñoo xam ne jot na loo xam àdduna tuuti itam donte jullit lañu wala catholique la wala lu nu munti doon da nga ko fay fekk mhm. il est temps ko ñu xool li gën ak li gën a rafet la nga xam ne bu couple jógee pour dem kanam dana leen mën a servir mhm. waaye tam bu fekkee ne dañu war nit ki di dem maye doomam ma ngay maye doomam wala ma ngay ngénte def ba def lu mu mënul dafay mhm. compliquer yëf waaye lu baax la nga xam ne jot na ko wax te lépp lu baax la wax nanu xool nu nu koy royee waaye na jàpp ne mu wax am na fi y de des yoo xam ne kañu la bàyyee la ca boppam bu dee yàlla dénk na ko as tuut mhm. balaa ngay wax leen fekk meubleel na leen fa ngeen jëm sa yaay def na say tànt def nañu say umpaañ mhm. def nañu def mhm. nañu kon nañu xool ya baax ñu koy roy waaw léeg-léeg nga ngénte def teraanga te yow bébé bi ndey ndeysaan mi ngi tëdd ci ay synthétique tëdd ci yoo xam ne ndeysaan amul yére bu baax nga balaa ndooy di ñëw xam nga ngénte Sénégal ku ci gën a sonn ku ci gën a sonn liir ba xanaa day yendu du lekk su xefee ñu toog du gis ndey ja ci kawam nga naan malaan ana liir ba yàgg nga ko dégg sacré mami li ngeer beneen bi ci topp mooy liir yu fi bari dañ leen di ngénte ba ngoon jot nga gis seen biir yi di metti waaw parce que dañ leen a sànni ki takk bee jën ñëw dugg ci xew yi mhm. loolu nag waxi cosaan la mag ñi xam dégg nañ fi may waxee xalaas naa ko def liir ba musiba ñetti fan mu faatu liir ba du lekk du naan dëgg la am na fi ñoo xam ne dañuy wër ngénte yi dëgg la ñu ñëwee sa ngénte ñetti fan liir ba faatu ñu ciy wañ di ci wutub lim ndax daa am luñ ciy wut am na ci ñoo xamante ne ca saloo ba la ñuy fàttee liir ba hmm. am na ci koo xamante ne ci kaw lalam la tegoon liir bi bañ toog ci kaw lalam am na ci koo xam ne takkaayu jàmbur la àbb takk ko ci suba gi di ko tekki war a takkaat takkaayu yaayam ci ngoon gi waaw fi mu koy tekki di ko teg doomi baayam moo ne cas takkaay li dugal ko ci këmb kaayam heureusement ba moo doon tourné ba yem ci moom xam nga yooyu yëpp tasu mboq la xëy na bu ngeen organiser woon xool ni ngeen koy defee du demee noonu mais dafa dafa am ko woote doom la nga jot a xam ci bës Eva Tra bu ko xamoon yàlla dafa am ko woote sànq wax lu am solo mooy paan bi ñuy yóbbu paan bi man maa am doom man neewu ma la lii laa soxla mm. neewu ma la lii laa soxla mm. neewu ma la ndax sama poche mën na ko wala mënu ko mm. nga dem jëndal ma mm-hmm. am na ci ñoo xam ne lañ lay jëndal buñ dikkee doo ko solal sa doom te du tee danga koy fay. dëgg la waay paan bi da fay ba fay lañset bi ñuy wotee xale bi. dëgg la mais am na ci nag. njëkkee kan nga koy sa njëkke ni ko indi waaw xanaa da lay neex lool déedéet mu neex la ak mu naqare la ah, non non non soo ko deful lu lay def soo ko deful lu lay def sa der yàqu da koy teg ko am na ci nag njëkk yu am xel yu mel ni aji Soda Sall suñu danaan la bi dama la ko ah, sa wax dëgg yàlla defal sa sëy non non non non la nee ma Eva noonu la dama bëggoon fekkee xam nga lu ma bëgg nga may wax Awa Diop jeeg bu baax day defal sëy non li ma lay wax li ma lay wax su caméra bi fay tàggatool waay laa la koy wax wuyu ma am na ci ñoo xamante ne. mooy ah. baan am na am na bu gën a garaaw. Uh-huh. sànqal su mujj. sànqal su mujjee gën a garaaw. Mm. bisub dëj. Mm. nga ñëw sa càmmiñ faatu sa jabari càmmiñ toog di muuru. Mm. nga toog ba ngoon jot nga ne ko sànqal su mujj. dajale seeni xaalis jox ko ko mu war leen a delloo xaalis ba bu pare yëkkatiwaat ci xaalisam tegal leen. gis nañ ko fi waaye waaye gitaar ak wokkutu nag jimi mbaye gën a aay waaye kenn musta fekk mu koy def Sénégal kenn gënu leen maa ngi leen. di tàgguwaay <laughs> ñëpp ba suba ak jàmm ak salaam di leen wax ne yéen daal dee leen ñu jégg rek ñun ñuy wax nii rek dañu xam naa ne balaa noo dem di nga kaw xam nga Abib Ndiaye d'accord dañuy xeex léeg-léeg waaye mënuma koo ñàkk 151 56 27 150 non waaw 151 56 27 Abim Ndiaye ma nga fële ca Ouest Foire dee leen ko seeti mu di leen defal yu baax yooyu mbaa mi ngi ci mbaa ñu ngi ci jàmm. non ëttu sëy bi ña nga ca yu baax yi ñuy def. très bien ñoom moom. ña ngay taawee di yokk rek. danaa fexe jege si leen incha euh, euh, li ma la doon wax ci waadu euh, assemblée moom laay tàggoo rek. rek ñuy réformer léegi. waaw la ñu dem ca hémicycle ba dama ko bàyyi comme ni ko justice bi di réformer affaire yi. très bien mënuma laa may sama doom. a mm. après su amee doom. Mm. ma jëkkati xaalis mayaat la. Mm. question bi may posé mooy. nga am su doom ju góor say doom yu góor. sa seen sœur am doom. nga mayee doom ja seen sœur ba pare. su seen sœur am doom. yow yaay nga ni. sa doom yi ak sa sa frère yi ak ñëpp nañ la jàppale ndax da ngay ci ci liggéey bi ñuy liggéey su weer yu dee la ñuy fayeeku mm. nañ ci jël cent mille francs jox la nga dajale ba muy doon un million deux millions trois millions nga jël ko di ko may ji yaay jàmm loo bëggoon assemblée bi def ci ñuy réformer non non dama waxuma assemblée bi dama nañ def ni assemblée def ak yenn kii jigéen ñi ñu seetaat ko non affaire bi nii dem ñu réformer waat ko ki nga mm. may sa doom moom kay su amee doom ñoom ñoo la war a war a may ne la kontaan nañu ci sa doom ji nga ji ñu may mi ngi sëy sëy bu normal ku baax la indil na ma ab sët yow kay yaa war a joxe très bien comprendre nga dama bëgg ñu li ñuy de maanaam nañu xoolaat ci contraire bi contraire bi moo war a am très bien ndaw sa fa mu sëyi maire ba ca boppam moo war a teral merci Ndoye Bane noonu la war a demee tey nag émission bi tey dañu koy arrêté rek kenn rek laay may émission bi tey kan ngay may émission bi Aïssatou Diop Fall <laughs> ADF non moom xam na man xam naa. yàlla na ngeen ko yàgg a xamante mbokku téléspectateurs yi seen émission kan laay souhaiter joyeux anniversaire Abdou Aziz Ban très bien Abdou Aziz Ban sunu rakki bopp nu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire. di ñaan yàlla fan yu gudd ak at yu bare macha allah ànd ak wér topp ci bés bii tey macha allah moo tax it dañuy wax rek nga xam ne Mami lingeer dafa ko may émission bi mm. kon boog jox nañ ko lépp Eva Tra nag àndoon ak yéen ci seen ni nga war a toppatooyee jaboot gi boo ci boolee di yàq dafay doy waar wax naa ko démb te ñu ngi doon wax autonomisation de la femme autonomisation nag duñu ko mën a dund duñ ca mën a àgg fi lekk bàyyiwuñu yàq est-ce que yàq bi ñuy yàq jar na ko mhm. foofu la ñu war a teg suñu loxo nu xoolaat waaye nag bu nu fàttee ñaari gor bu nuy ànd faw daanu sekk teraanga mënuma ko awma lu ma ko jox daa dee toog ne yàcc loolu tam kenn wax ko nanu xool la jaadu ci diggante yi ñu koy def ñu ngi remercier bu baax équipe bu Lassana Jigali waaye di wax itam Papa Samba Thiam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Lassana on te di bravo merci hein, pour tournage bi nga xam ne def nga ko ak ñun moi je remercie également mon ami Akhlam waaye damay remercier sama coiffeuse ma nga nekk ci 77 648 56 waa kër njaga Dieng itam ci Mauritanie noo ngi leen di nuyu bu baax a baax Astou Dieng nuyoo bi yaay boroom di leen wax ne bëgg nañ leen sopp nañ leen Nafi Dramé Diop corps monsieur le maire tey dama lay beral nuyoo sama rakk ju baax ji yal na yàlla defal nu jàmm ñu ñëpp ci Sénégal yal na nuy def lu nu mën waaye tam yal na nu dépassé jamono yu ñuy tolloo ci defante nu bàyyi defante ñun jigéen ñi lépp loo xam ne dañ ko yàqule rek defante ca la bokk nanu xoolaat bu baax li ñuy def jëre ngeen jëf mbokk yi soppee yi noo ngi leen di bëgg jox leen rendez-vous Mami Linguère ak Ndoye Bane Evatra ba suba incha allah merci beaucoup